maaleykum mbokk yi topp 24actu point com dellusiwaat nañ suñu émission bi nga xam ne moom lañ tuddee jotaayu koor koor nag ñu ci ànd ak ñi ci loo xam ne dafay dundal koor xam ngeen ne jotaayu xasida yi dafa bokk ci li ne dafay ànd ak ñi nga xam ne jànkat yi la tey ji ñu daal dalal ki nga xam ne moo di Serigne Ousmane Diouf Serigne Ousmane Diouf bokk ci jànkat yu mag yi waaye bala ñoo dalal suñu gan xam ne jotaay bi tamit dañ ciy ànd ki nga xam ne moo di soxna Assi la soxna Assi ñu bàyyi la nga nuyoo asalaamaaleykum actu tey nañu desuwaat ci seen émission jotaayu koor jotaayu koor nag comme ni ñu ko baaxoo di ànd ak yéen saa su nekk rek ku ne xam na ne jotaayu koor moom dañuy koy dundal li nga xamante ne moo di weeru koor bu baax a baax donte weeru koor yàggul waaye lépp loo xamante ne mën nañ ne da ci day dundal koor gi rek dañ ciy yëngatu bu baax a baax rawatina di ciy dalal jànkatu xasida yi ndax xasida dafa nekk lu ama am solo xam naa tey nag ñu dalal suñu ganu tey bi nekk sëriñ Ousmane Diouf ñu koy nuyu bu baax te di ko ziar ñu taxalu foofu ci kanam incha Euh, waa so jërëjëf soxna Astou ci nuyoo bu matale boobu Serigne Ousmane ñoo ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ñu lay seetaan. Euh, salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Euh, bokki jullit yi bokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu bu baax kenn ku nekk ci turam ak ci santam. di leen siyaara bu baax siyaara bu gën màgg di leen baalu àq bu baax te di leen balaax tey eh, ñaan ci darajey sëñ Touba yàlla na nu suñu borom boola jéggal jiital ci nuyoo beeg siyaar bi xalifa général de Mouride Serigne taxa basiiru ñaan suñ kàddu fekk ko ci jàmm mm. ñaan nag di siyaare bu baax itam sunu sëriñ bi ñu sukk jébbalu muy sëriñ Fallou Mbacke moom sëriñ Mourtada mm. moom sëriñ Fallou mm. eh, ak mboolem koy sol sa daal te lislaam tax di ziare mboolem jànkati xasida yëpp. di leen ziare yéen waa site bi. Euh, di am mbégte bu baax ci initiative bu rafet bi bu baax bi bu sel bi ngeen def. fas yéene ñëw nag incha allahu rabbi ngir waxtaan ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy seetaan site bi yëpp. Hmm. incha allah di ñaan lépp luñ fa wax rek. yàlla na dëppoo njariñ ak xéewal hmm. ci dara yi sëñ Tuubaa xasida yi ñu jariñoo ko ñun ñëpp. Hmm. Ah, waaw jërëjëf sëriñ Ousmane ci nuyoo bu matale boobu waaye tamit xam nga ne jotaay bi dafa baaxoo mooy jotaayu xasida bala ñoo dugg ci biir waxtaan wi nga daal ñu ibbi li nga xam ne moo di xasida yi lisaani nawir janaani safi amaani wasit baraa'i saxsaxta dayra lii xuttamayra faltak fi jawra lii mayuraa'i an xis ciyaali min adalaali wa bilxalaali xalit sorai xini itaaba xulil kitaaba waqbal mataaba yaa sastirai yaa xayra rabbi xayri murabbi tayabta xalbi ba'da tidaa'i salli wa sallim alal mutammim wa kulli yaazim bil intihaa'i allahumma xaq wacilaahi taala alkarimi salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbi wa farrix bi hasi manzumatin fi kulli waqtin wa hiinin abadan wa habli nazimiha ridaka al akbara fi kulli arfin minha wa habli kulli man yaqra'uha saadatu daarini amin ya rabbal alamin subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin xasida yu am solo yooyu dégg nañ ko macha allah waa sëñ Ousmane ñu bëggoon a xam tamit bu nee sëñ Ousmane Diouf kan mooy sëñ Ousmane. waaw sëñ Ousmane de xam naa moom doomi Sénégal la juddoo ci biir réew mi juddoo ci dëkk bi nga xam ne moom la. Eh, seriñ Touba sancal boppam muy fii ñu toog di Touba Mbacké fi laa gënee jamono atum 1978 fële ca Touba Ñang yàlla boole ma ci eh, askan woo xam ne xasida ak alxuraan rek la ñuy dund moom la ñuy nemmiku mm-hmm. ma alxuraan ji nag ak xasida yi fekk sunu waajuru góor di ko def ak sunu waajuru jigéen sun famille yëpp itam doon ay jànkati xasaayit formé ma ci ba yàlla dogal ñu agsi ci fii ñu ci agsi macha allah loolu tamit dégg nañ ko ñu daal di bëgg a xam tamit sëñ Ousmane kañ nga dugg ci njàng mi. waaw jàng nag moom daanaka mën naa ne man moom laa jànge sax wax. Mm-hmm. moom laa jànge wax ndax ñi ma miin te euh, xam ma dëgg-dëgg xam. Euh, jiitu ci samay waajur ñoom xam nañ ne turu sëñ Mbàkke Soxna Lo ak bayitu alal wasiri sayfil basiri moom laa jàng wax kon man dama cee juddu comme li ma la wax léegi ndax sama waajuru góor euh, ku ñuy wax sëñ Mut Samb jàngkat moom la daan àndal di ko aw ba mu yàgg mu doon ab jànkat ci jàngi di dem fu nekk mm-hmm. waaye daf cee tàggat sama wajuru jigéen mm-hmm. ba sama wajuru góor su ma saana am programme bu mu war a fanaane jàng mm-hmm. sama yaay mooy jàng première heure bi ba trois heures sama baay fanaane ko man ci laa juddu kon daal boo ñu bëggee wax doon nga ko ci diggante si sa ñaari waajur waaw dama ko doon moom maanaam man moom xanaa kañ laa ci ëpp Euh, kañ laa ci am accès dëgg-dëgg. pour pour continuer ku nag xam ne lii. moom lu ma war a topp la loolu moom mën naa ko xam mais mam bi ma xàmmee rek laa tàmbalee jàng parce que maa ngi fàttaliku bi ma doon ne tout tànk sama papa ñoom buñ masaan a am programme su ma fa demee di jàng nii damay gis comme xalewaay bi ak yooyu damay gis nit ñi di di ma jox xaalis bu bari ak ay yére di wooxu di ma fa am na jàng yu maa ngi du ko fàtte. ma fekk fii la woon ci garas daaru booba ab àll la woon mm, fiñ fiñ fiñ defoon kii bi am mbaarum sàkkat lañ fa defoon takk fa ay ay rajo buyaar yi. booba lu yàgg la lool. mais ma fa nekkee di jàng ba mu jàng jël bari nit ñi di daanu di ma xëpp ay yére ak ay montre ak ay nangam. sama benn papa bu ñuy wax Mbaye Diouf Fallou moo ma meeb ndax maa meeb jël dugal ma ci ci biir kër gi. mais bi may xam bi nga xam ne nag maa ngi xam ne man ab jàngkat laa war a doon dëgg-dëgg. ay 87 88 la. boobu moom laa soobu nag dëgg-dëgg parce que boobu la fekk xaarim géey mi di doog a génn ma nekk wilaaya Nasru moom mu nekk euh, Minnatu xaw ma Muxlisina alors léegi nag yàlla dogal maanaam. Hmm. Euh, mu génn ñun ñëpp moo boobu moom lañ xam. Hmm. ma daal di ci ma ànd moom nag di ko topp ci kii ak wilaay seexale yi ñu daan def ak yooyu. Hmm. loolu moo taxoon. kon daal waaw booba nag waaw laay def fu muy jànge ma dem fa. parce que man loolu laa xam daal mooy li ma la wax léegi rek. ndax jëkk ay heures yi eh, kii yi may jàng laa xawaar yi comme heure yi may jàng heure yi mag ñi may jàng léeg-léeg en général sam papa ñoom bu ma saan di jàng rek damay ànd ak ñoom dem di jàngi. waaye nag 87 88 moom laa taxaw nag dëgg-dëgg ci ne lii daal su ma ko gëmee moom mën na maa dem moom. kon daal yoon woowu nga jaar di topp sa waajur ba dugg ci. waaw waaw tamit ñi di bëgg a xam ba xam sëñ Xaadim Gueye nee nga wax nga sànq ne doon nga ko topp moom nga ci àndal moom kese wala am yàlla dafa dogal nga juddu bëri doon sa sa sa mbir maanaam nga bëgg làmb mm-hmm. doo tànn menn mbër naan mbër mi laay àndal wala laay nangam. Mm-hmm. dangay fexe ba foo déggee ñu tëgg mbapat rek. Mm-hmm. nga dem bëri ji. loolu moo tax man fu ma masaane dégg jàng tàmbali rek amul kii amul kaam léeg-léegi sax ma dem di aw koo xam ne. man maa koy dàq jàng xam naa loolu. mais nag tànnoon naa tànn bi mooy sam papa moo ma waxoon ne ma lii ngay soobu di ko def de mën na ko am ma bu fekkee ba nga ci am réussite mën na ko am ma il faut nga ñeme lu metti mën na ko am ma mooy jàng baat koy def. mën na ko am ma baat nag ay comprimé ay siroog ay yooyu du ko joxe. original baat mën na ko am ma dangay aw bay wacc bay yàbbee direct mm-hmm. boo ko defee ba wér mën na ko am ma dootoo am loola jaaxal ci njàng mi. léegi nag sa itte yow na jéem a nekk ci loolu loolu moo waraloon en général ku may dem di la toppi ñaare. damay xool ba xam ne yow yaa ma supérieur baat maanaam njàng mu soxor ngay jàng. ku ku ñàkki tappale ngay doon. ma dem topp la. moo tax ñooñu nag tànnoon naa ci. ku mel ne sëñ Malick Fall mi nekkoon Darou dos ah tànn ci ku ñuy wax sëñ mbay ja mbay ba ni ma ñëwee ci sëñ Xaadim Guèye mi. waaw sëñ Ousmane ñu seetlu ne njàng mi bi nga ciy dugg mën nañ ne wax bu teel la comme ni nga ko waxee. Mhm. Euh, ndax bi ngay dugg ci njàng bi da nga ko boole woon ak li nga xamante ni moo di métier wala da ngaa yemoon ci njàng mi rek ñun nag suñ famille ñun loolu lañ xam ñun liñ xam mooy njàng mi moom léegi sax lañ ci am intérêt yiñ ci am nii nga xam ne daal dab nañu ci mais ñun moom sóoraale wuñ ci woon woon ay yuñ ci war a amee ak yu demee noonu. Mm-hmm. moo tax ku juddu ci kër ga dañ lay xamal alxuraan nga jàngi boo paree nag nga dem jàngi métier. Mm-hmm. Euh, man nag euh, euh, métier dama ko teel a dugg moom parce que mën naa la wax ne la comme ay quatre vingt huit yooyu ma lay wax noonu ay quatre jàpp quatre vingt neuf <coughs> boobu laa dugg métier. Mm-hmm. métier mi ñuy wax menuisier métallique. ku ñuy wax Moustapha bi tey moom ma ko njëkk jàngal ba ma def ca ay at après ma jóge ca dem ci ku ñuy wax Baye Jibi Ñas fii ci Daaru Xudoos moom mu jàngal ma ci ay at ma jóge ca doog a dem place bu ñuy wax place su Omar Ndiim. te loolu yëpp suñu Ousmane yàqul la woon dara ci njàngam. non non non man dama daan yéen dama daan liggéey mhm. ba jant bi soo ma wàcc war a jàngi ab daayira tàkkusaan tenue de travail bi ma sol moom lay continuer daayira dem jàngi ji ma jàngi ji ba pare continuer suñu kër dem sangu sol sama yére su ma amee feneen fu may demaan ma dem bu ma amoon ma toog mais daal métallique moom def naa ko ba am ci certificat de travail troisième catégorie sama premier voyage France métallique moo ma naroon a yóbbu xëy na lii la yàlla na moon mooy ma Ousmane Diouf jàngkat la lañ lañ waroon gën a dégg ci ka Ousmane Diouf métallique. Mm-hmm. mais nag ni may fente air ci ci eh, njàng mi. Mm-hmm. noonu laa doon fente ay modèle ci métallique bi. jërëjëf si mm-hmm. Ousmane ci leeral yu am solo yooyu mais ñu gis ne jàngkat yi am na si ñoo xamante ne dañuy def lu mel ni ay olofal. ak eh, tamit damay dégg si wàllu njàng mi ñuy wax lu mel ni baatu eh, rajas ban genre façon ci jàng yi ak bu fekkente ne mën nga ñu cee yëkkati ñu xam. maanaam rajas. mooy li doon def léegi. li ma doon maanaam li ma doon jàngi ma doon olofal nag. écriturien moo koy def. maanaam koo xam ne yàlla may na ko xelam di di kii man mii man sax bind naa. Euh, mais nag euh, ay pàcc la maanaam jàng façon yi la am façon yi la am. rajas la am. mawlud. njàngum aw loolu la am. Mm-hmm. ñetti pàcc yi la mooy rajas mawlud. Mm-hmm. njàngum aw loolu la loolu loolu mooy kii. Mm-hmm. mais nag rajas moo leen jur ñoom ñëpp rajas moo fi jiitu. maanaam ñi nga xam ne sëñ bi mag bi daal leen jàngaloo njaareem ñuy mawlud. ñooñu njëkkewuñ mawlud daf sëñ bi daa njëkkoon a am ay rajaskat ay Baye Mayib Guèye Boubacar Fall ak Ousmane Sow ak nangam nangam ñooñu. Mhm. ainsi de suite. Mhm. waaye nag biñ demee ba mu jàgg li indi mawlud mhm. mooy rajas kenn koy def kon kii rajas su dee rajas li muy rajas benn xasaayit lay doon. sëñ bi nag gis ne comme kii rajas bu amee fukki nit ak ñaar yu toog di ànd ak moom ci li muy wax. saa buñ jeexalee xasida gi ñuy jàng rek fukki xasida ak ñaar jeex. moo tax mu ne nañ kuréel mawlud ma par douze personnes ñoo ko daan def. mais rajas. moo jur mawlut. mawlut moo jur njàngum aw. fàttali ko soxna Ami Fall xataaba moom Baye Cheikh Fall xataaba yal na yàlla guddal fanam. mi ngi may nettali keroog mu ne ma sëñ Modou Moustapha bis bi mu njëkkee gis Baye Cheikh Fall xataaba yëkkati njàngum aw nit ñi di ko aw. da koo yéem daa xëy rek sëñ bu ubbi. ni ko Cheikh Fall sa njàng moom yéem na man bi loolu di. Baye Cheikh Fall defe ne comme tàmm gi tam tàmm mawlut ak yooyu tam bàyyi ko di jàng ñu koy aw moo tax. Mm. mu mu arrière bëgg a bëgg a bëgg a dellu mu ne ko déedéet. Mm. njàng mi dama damaa gis ne waa jigéenu óorul ay ni yenn àjjana dañ koy bëggee. te musuma xalaatoon ne njàng mi dana ñëw ñëw àdduna damaa defoon njàng mi foofu rek la am. Mm-hmm. kon kon ñetti pàcc yooyu la. Mm-hmm. waaw moo tax boo njëkkee rajas maanaam tàggat sa baat ci rajas ba man ko carrément. li mhm. ci des dala lay yomb. Mhm. comme comme boo boo boo boo mawlutee ba man ko. Mhm. nim lay ni la njàngum aw du soxna Mame ñëwaat ci question yi. Ah, waaw sëñ Ousmane tamit ñu daal di gis ne tamit sam njàng lu ci ëpp tamit ay wolofal dañ koy gis ci say eh, njàng bu baax a baax te hmm. wolofal yi tamit dañuy sedd na dafay am rythme bu baax lu mel ne comme ça mbumbaay hmm. lan moo waral loolu. boo demee ci am réew nga bëgg faa dëkk da xool li waa dëkk bi di dunde nga fexe ko nga fexe caa adapté wu. même l'islam sax da laa jàngal lool. Euh, xëy na si li olof dex siiw du jàmmi boroom bu la boo siiwee buñ la xamee kenn ku nekk ak ni muy toppee sa mbir ak la ko ca neex. Euh, wax naa la ne la quatre vingt sept quatre vingt euh, jàpp quatre boobu laa gëm dëgg-dëgg njàng parce que tant bi ma njëkk a fanaane mille neuf cent quatre la. mais euh, am loolu sax indi woon na coow amoon na ay ay ay ay comme ni ni mu jaare ci ñëpp. waaye loola luñ seere woon la. Euh, gëm ko métti woon aussi tamit parce que xam nañ ne. ñi ko daan wax ñëpp léegi kindiku nañ ci lu baree baree bari. ndax man dañ may jël ma dem war a fanaane jàng ji yaakaar naa nit warta mën a fanaane jàng rek. war a jàng pili de trois heures de temps. def ko lépp ay wolofal. muy benn. beneen bi ci des mooy. waroo mën a dem war a fanaane jàng. Euh, maanaam maanaam euh, tàmbali ba mu xaaj. li ci des nga def ko wolofal maanaam une heure de temps et quelque. sama wolofal bi gën a siiw mooy maam jaara bi. Euh, boo xoolee temps bi lépp lépp lépp lépp. matul sax sept minutes. Mm-hmm. ay jàng la woon jàngi kër Malick Sall. Mm-hmm. ma jàng masiyaat ba masiyaat bi jeex. Mm-hmm. ma jàng ma am jaara bi. xëy na nag lu indi coow li mooy. fi ma génne man. foofa ñu bari daawuñ fa dugg. mooy maña mañax ja. ak kun kaŋ ak kaŋ jooju. loola gars yi xamuñu ko woon parce que neexut a jàng. Mm-hmm. man ma ñëw jàng ko ba pare mu tege ci yoon xam nga loolu faaw mu def bës. loola nag moom moo indi <laughs> moo indi woon loolu. Mm-hmm. mais nag euh, wolofal itam euh, ay daf ci am euh, dafa am ñaari argument bi njëkk mooy ñaari am na ñoo xam ne jànguñu xasaayit mm-hmm. maanaam comme li wax kaana yi bari na ci kaana yoo xam ne. jànguñu xasaayit mm-hmm. léegi li li ngay mën a def pour convaincre leen mooy nga jàng wolofal mm-hmm. wolofal boo koy jàng mm-hmm. mi ngi mel ne tey nga toog ak maanaam benn nit naan sa diw mii nangam nangam nangam nangam di ko wax nga xam ne li tàmbalee ci wewu tànkam ba ci diggu boppam day da nga koy gaaw a comprendre moo tax en général léeg-léeg buñ toogee ci baas yi ah ñu di ko jàng léeg-léeg nga gis fi ne da ngay jàng xasaayit daanaka ba nga tàmbali trois heures ba cinq développement du am ci ci njàng mi mais boo tàmbalee dugg ci wolofal yi da ngay gis nit ñi di daanu di la jox seen parce que loolu moo mën a gaaw a dugg ci seen bopp daal waaw waaw maanaam li ñuy wax tawari ak pratique la hmm. waaw ba tax wolofal boobu tamit ñu daal di gis tamit jàng ci boo xam ne soxam bi sëñ Bamba demee ci kii ba naan sëñ Bamba rek hmm. boobu tamit bëgg nañ nga dikkal ñu ci biir jotaay bi nii <laughs> waaw waaw xam nga soo moom moom. li ñuy wax rek man dama damaa xam nga am na nit gëm-gëm dafa am solo. waaw waaw gëm-gëm yi ça veut dire que euh, li ma la léegi rek siiw du jàmm borom. Mm-hmm. fi ne ma jotaat naa ci ay yu day waar moom itam ndax dañ ma doon wax naa ma sëñ Modou Kara daf waaw waaw dinaa ko yëkkati dinaa ko yëkkati <laughs> sëñ Modou Kara mm. dañ doon wax ne daf maa jox xaalis. daf maa jox xaalis bu bari dañoo daf maa réservoir mm-hmm. jox ma xaalis bu bari moo tax ma fent loolu nanganaam te yàlla xam na ne mm-hmm. man maay nit koo xam ne mm-hmm. loolu noonu la sama plan de carrière noonu laa ko tracé mooy chaque année damay génnee loo xam ne maanaam de il faut ñu di ci wax man loolu laay def xam nga loolu noonu laa noonu laa tërale sama plan de carrière alors léegi nag ñu ne sëñ sëñ Modou Kara daf ma cee jox xaalis bu bari te araam sax ko <laughs> sama gëm-gëm la rek ak sama yooyu yëpp maanaam su ma dee jàng ci biir jàng amul lu may répété mbaa lu ma tëdd toog di ko xalaat mu kii damay ne ci biir jàng muy jàng di jàng gaay aw mu may dikkal may may installé ba ba mu doyal ba doy ba doy ma rek ma bàyyi. Mm-hmm. noonu la <laughs> noonu la am de mais nag xam naa comme loola euh, ay aw koy awu. que du ma leen dinaa ma leen musal rek tuuti waaye il faut moom li ci am solo <laughs> dëgg-dëgg. mooy comme ni nga ko waxee sànq rek ma àndoon ak ñaar wala yooyu. ban ko ne bu sëriñ mu ne la man du ma bu sëriñ xaw ma man lu dégg sëriñ xaajal ke di xaadim rasul fan yëfandar ko ne. gars yi ne léegi si la kaala yi bari. waaye démb moom rekk la woon gars yi moom dong la man leen moom dong la ba tey lislaam ji sax sàng ko na woon bamba ko daf ci biiri noon benn sëriñ moo fi neewoon te muy sëriñ bamba xaadimu rasul waaw gars yi di jàng nag manaa manaan leen nag ne ko panget ñu naan ma nangu ma naan leen ne ko ñu naan ma nangu waaw panget maanaam mooy panget nangu <laughs> waaw. waaw waaw. na solo ah, yàlla na ko yàlla fayal nga xam ne mooy mu daal di kàtt. Mm. <laughs> waaw suñu ñu bëgg a xam tamit euh, sa mbokk yi jàngkat yi nga xamante ni ñoom nga bokkal mën naa ne ab jëmukaay yéen a bokk lu ngeen bëgg-bëgg yéen relation nga am ak ñoom. waaw xanaa doon ñu doon samay xarit. Mm-hmm. xam nga nag xaritoog ñëpp moom. Mm-hmm. jafe na. Mm-hmm. ñaare moom bu fekkee doon fekk. moom bul ne ñëpp laa xaritoon. Mhm. waaye ñi nga xam ne maa ñoom ñoo ci bokk jikko. Mhm. samay xarit lañ. Mhm. ndax dëgg yàlla te xam naa ne soo doon wër nii bala ngaa gis koo xam ne dañ na daan la maag ah Ousmane Diouf moom maa moom defuñu neen. Eh, dana dana xam ngul tax. yàlla damaa dimbale ci côté boobu ñoom maay seen jànkat. waaw fi ne ñi ma tàllal am nopp samay kay ñoom xaayim géey meeg bu buñ bokkee nekk ensemble toog nii. Mm-hmm. man la ñuy bëgg ma jàng. buñ nee jàng rek danaan joxal Ousmane joxal Ousmane. Mm-hmm. parce que li ko waral mooy dinañ xam ne liñ bëgg ci liñ bëgg ci wàllu jàng maanaam ñaari version yiñ bëgg mu dox ci. Mm-hmm. bu ñu ma joxee ñoom dañ koy am. parce que ñoom mën naa leen a jàngal ñoom ñoom jàngkat yi man na maa jàngal public bi. loolu tax buñ dajee rek dañ naan jox leen Ousmane jox leen Ousmane mu jàng. waaw gis naa bi daan nañ gis bu <laughs> gis nga ñoom ñëppay jóg dañuy manifester woo soo dañoo ñàkk ñaan rek nag. Mhm. nekk nekk ay nit yu baax. moo tax ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoom laa seqal euh, njàng mi am na ci ñoo xam ne itam yàlla dimbalee na ma ci bu ma déggee ñu jàng loo xam ne lu ñu war a téye la wala lu ñu war a jàpp. dama leen di woo téléphone ne leen air sangam air sangam bi nga air nga ne waaw man la na nga ko jàpp am na dina dina baax mais après da ngay da may woo ni ma ni ma félicité ma ni li nga wax dëgg la. Mhm. am na ci loo xam ne tam su ma gisee nga jàng ko wala nangam ma xam ne lii day yàq wala mu kii dama lay woo ne la ah nangam ak nangam nangam ba démb rek fii ci Hizbut Tarqiyyah def naa ko fa démb. Mhm. sama ñëw di seetaan si njàng mi am kuréel gu toog di jàng am daaj mun daaj. mu am mu dee déséquilibré tuuti daal. ma ma ma génnee ma woo seen seen techniciens yi wax leen ko. ne leen heure sangam heure sangam ñaari heure sangam ni ñu jàng ñu naan ma leen bu ngeen àggee na ngeen ko répété waat parce que mi ngi am tardement ci béréb sangam béréb sangam béréb sangam. Mm-hmm. mais dañ ma ko accordé dañ ma ko nangul. Mm-hmm. kon man jànkat yi relation bu baax laa am ñoom. Mm-hmm. mais nag ki nga xam ne mooy jànkat bi ma mën a amal relation man bu baax. mooy jànkat bu modeste. jànkat boo xam ne taalibe nga parce que man ci noonu lay dox. ñi ma xam-xam nañ ne maay ki ëpp fulla ak fayda ci ñi ci sama sama sama génération. waaye maay ki ci gën a modeste. mooy boo ma rombee man nga maa yendal fii. waaye bu jàng desee bu jàng jotee. boo ma tiimee may jàng doo ma ñeme. loolu nag laay bëgg bëgguma jàngkat boo xam ne dangay ngay wane mm, ba service bi nga sol. mbaa ngay wane oto bi nga am mbaa la waaye xam naa nga gën fee indi ay leeral ci par rapport hmm. euh, mi nga xamante ne mën nañ ne nit ñi léegi dañ cee dugg ba ba mu ëpp. Hmm. comme yow boo waxee année bi nga xamante ne mën nga ku teel a dugg njàng bi la. Hmm. Euh, ak moment bi nga xamante nit ñi dañuy xool kan ne euh, Ousmane Diouf moom dafa bëri soppe xaarim gi dafa bëri soppe xaarama dugg si njàngam ba xam naa mel ni ñoom. ndax ñoom tamit relation bi ngay am ak ñoom ay ngay am ak ñoom xaarim gi dina bokk. waaw loolu ci ñaari version lay dox kenn ki mooy ki nga xam ne daa ñëw laaj la xalaat. ne la ah, sëñ bi nga naa nga ma laa yokkat bi ngay dugg ci jàng man juddoogu ma. léegi nag gis naa ne jàng mi ni nangam nangam dama cee bëggoon dugg ci wan yoon nga may teg. kooku da nga koy ci yoon. mais ki nga xam ne nii nag moom ñëwul a laaj li benn xalaat xanaa daa jekki jékki dugg noonu. da ngay xool yow wàccuwaay wi mu la jox. nga nga ko foofu. Mhm. bu fekkee gis nga ne xam nga ne du ko du ko mën a joxe cër trop trop trop. wala du wala koo xam ne xëy na am na yeneen jikko yu mu àndal yu àndut ak jàng. Mm-hmm. da ngay da nga koy utal limite fu lay yem. Mm-hmm. mooy li ma la doon wax léegi. Mm-hmm. mooy dama la maanaam boo boo dee seet ci sama génération man nga leen a dékk micro nga bi ci ëpp fulla ak fayda. <laughs> parce que boo ma su ne bu ma ñëwee ci biir tante publique lu mu bëri bëri bu kenn jugee bëgg a jël jànkat yi wax leen loom leen warta wax damay jóg man maay jóg sol sama robe avocat taxaw. Mm-hmm. bu laajee xeex ma xeex bu laajee uh, bëre ma bëre. mu mel ne ay soppe da xanaa war nga koo bari la waaw <laughs> loolu loolu macha allah moom. <laughs> te xam naa yëngu Touba sax nag. <laughs> déedéet partout dans le monde. xaaral rek négal ba ngeen dugal ba ngeen dugal image bi ci ngeen di xam. moom moom moom uh, te li ci gën a yéeme mooy ñi nga xam ne ñoo gën a jafee gis ci dëkk bi. Mhm. ñoo may déglu man ñooy doon samay fans. am na benn sëtu sëñ Fallou boo xam ne ab taawam la jur actuellement nii moom moom moo nekk xalifa baayam sëtu sëñ Fallou ma lay wax doomu sëñ Abdou Karim la mhm. moom sëñ Abdou Karim moom sëñ Fallou sëñ Abdou Karim mu mag ma mhm. taaw sëñ Fallou moo jur baayam moom mooy xalifa baayam fi mu ne. Mhm. taawam bu góor man la ko tudde muy sëñ Ousmane Mbacke. Eh, am na amul benn jàngkat bu la man a toog fii. Mhm. mbaa nga dégg ko micro mun la am na turandoo Mbacke Mbacke. Mhm. ku dul man Ousmane Diouf maa ko fi am. Ah, te loola moo lay wane ne la rek. nit ñi bàyyi nañ ma xel te koo xam ci lu ma bëggee. sama kaset la déglu rek ma jàng ma siyaat mu jóge këram ñëw sama kër. Mhm. toog ci suuf. Mhm. ma ne ko ma xooloo ko ne ma ne ma mbàkke ma ne ko déet mbàkke ci suuf juuf ci kaw mu ne ma ko boobu <laughs> loolu jubut. Ah, waaw jógal mu daal di jóg mais nag. Euh, ponk bi nga dugg sànq. Mhm. dafa am solo. muy ponk ñi doog a dugg ci njàngam. fi mu ne. man maa ngi ne la 87 88. pourtant ñun wax naa la ne la man sama tenue de travail laa daan sol. dem daayira dem jàngi ah. léegi si ñi ñi ñun liñ ci am ni boobu amuñu ko ci. Mm-hmm. man boobu ku ne ma woon di nga ci am kër gooy tabax. Mm-hmm. wala da nga ci am ay soxna. wala danga ci am oto booy dawal. Mm-hmm. wala da nga ci am compte banque loolu boo ma ko waxee. dama naan la kii daf may reetaan. parce que tiise yi amoon ñu koy wax dërëm yaay ak ak ak lengoo. yàgg na de ah. waaw. moo daanoon sama sànce de moo doon sama bassin riche de. Ah, ñu mu doonoo de de yee maanaam xoola léegi xam nga mètre léegi am na ci mètre trois cent wala deux cent cinquante. <laughs> su may jàng dama ci dem si xotti ci bu weer. boo lëggee ma xotti ci bu soon boo lëggee ma. yow bëgg naa xotti na nag. naa daan def de ñëw ko simple nag daa di direeku kay. noonu da laa daan def waaye yooyu yëpp damaa mujj muñ ko xool danaa dem jàngi ba waññeeku dem jàdd mbëkk rido dem ci may gay ñu defaral ma omelette ak cinq brochettes ak ñaari pomme de terre ak benn kii <laughs> mais dama am gëm-gëm bi waaye ñàkkuma woon fayda xamul tax mhm. moo tax xale yi maa ngi leen di jox mhm. eh, ndigal ci ne mhm. nañ ko boole métier jàng day ànd ak métier que léegi sii li xew léegi lépp looloo ko waral. mooy ñàkk koo booleeg métier. amoo foo sës. ah man daan bu ma masaana dem jàngi bu ma xëyee koñ bi ma doon jàngi. dinaa gàddu samay saafook samay fourne samay géej yaa si di ko fa jaay. war na yàlla léeg-léeg ma dugg ñu ne waaye kii daan mu xale bi doon jàng bi yow doo ki doon gaañ gi ma ne ma ma ne ma de. ay <laughs> ah, yow kon liggéey liggéey ma ne ah waaw ba ci la sama yaay laa am sama papa ñoom dama leen di dundal li ah dem jaayi sama yëf. léeg-léeg ma dem fu ñuy sànni ay oto ma dem yóbbu marto ak brin ma dem daggi génne ay ay ay ay bu ma ñëwee ndeysaan maa ngi fàttali ko is bu tarxee yi seen problème bi amoon fii. bi ma jullisee ajjuma ñëw rek fekk maanaam ñuy taal oto yeeg yooyu dama ne alhamdulilahi daal alamin waaye procès dekk na waay daal di continuer suñu place dem jëli marto ak birin ak tañaaj daj fa ay tool yu bari dem defar ko ay fourne ak ay mais tey <laughs> tey maa ngi nii sama sama tubaarkàlla su ma yëngoo lu ma li may gàddu li ci gën a diis mooy micro bi. <laughs> waa léegi nag mais sëñ bi yow e, maanaam e, sëñ Mbaye Jaxate daf ne. Mhm. doxoo te bëgg a raw ku ne. Mhm. jëfoo te bëgg am lu ne. Mhm. sonnoo te bëgg gën ku ne. du man a am na nga ko xam. kon mbër balaa balaa doon roi des arènes. il faut mu jaar ci mbappat. kon munoo munoo munoo doon e, war a bëre combat préliminaire ba noppi. daal di ko fay bàyyi nag bëgg a yóotu ci euh, euh, euh, combat royal la xoma ah mm-hmm. kon li ma leen di dénk rek mm-hmm. mooy na jéem a ko boole métier mm-hmm. jàng day ànd ak métier waaye jàngkat bu dem ba mu jàgg muy topp ab ministre mbaa muy topp ab ab de fonds boo xam ne nii sëñ bi maanaam ma nga wut ci moom lu mu bëgg a am. di mujj mu mel ne sëñ bi kuy taasoo koy nangam loola loola amul njëriñ. am naa ciy xarit. mais ci cadre bi ma nekkee. ci lañ doonee xarit. Idrissa Seck sama xarit la. Euh, am nañ ay relation am na maag ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu bari mais nag ñoom buñ ma gisee wallaahi asim barki sëñ Touba. bu ma recevoir bu ma ñëwee bu ma duggee nii ba toog nii. barki Xaadim Rasul ñaari loxo la may jox su jóot toog mm-hmm. parce que li ma nekk laa ko incarné. dëgg la de waaye li nga wax nii ne yow ah. da ngaa da ngaa da ngaa xaw a weex donc léeg-léeg nga gis yenn jàngkat yoo xam dañuy ànd ak politiciens yi nga dégg ñu ne ah kooku de moom day politique rek waaw mooy xam nga ab jàngkat mhm. boo xam ne dangaa dem ci ay meeting mhm. di fa sar xollee kay yoo xoo ko tàcc ko fecc <laughs> ak waa wallaay doom dëgg la billaay ndeysaan sama mën a ngam te nay yob jànkat nga mais sëñ bi kooku mënuñu la du yàq nga sa titre nag. Ah, mais républicain ah. xas day est-ce que war na dem. non non non non mhm. mais républicain nga. ah citoyen nga ci réew mi nga dëkk. war nga am xalaat ci réew mi. Mm-hmm. war ngaa xam li dox ak li doxul parce que par président Idriss Seck man mas na ma euh, recevoir këram. Mm-hmm. ñu toog di waxtaan. dama ko ne man mun naa mën a ko bu dee kër la. fekk nga sëñ Touba jox ma ko ci xaside yi. Mm-hmm. macha allah mun naa mën a ko bu dee oto la mun naa mën a ko sept naa ko. mun naa mën a ko bu fekkee compte du banque la mun naa mën a ko am naa trois comptes. mun a ah, mën a ko kon wut siwuma ci yow dépasse wala may wut si lu may lekk si. dama am ay rak mun a ah, mën a ko ñu ñu dugg ci xasida yi tama dem ambassade ñaani visa ba tàyyi ñu refouler ma lànk. te fiñ may maye mun a ah, mën a ko damay fekk ñu may vingt 22 heures. yoo xamante ne bii ne mun a mën a ko dañuy dem dong pour na ji wala nangam ñu may leen fi saase. man ma dugal doonu doonub jàngatu xasaayit samay kayit mat ñu war maa soxla bitim réew ma defa jàngee ñëw ñu recité ma mun naa mën a ko kon loolu état bi am na ci part de responsabilité. ñu bëgg nag ñun koo xam ne bu fi toogee day reconnaître sëñ Touba reconnaître waa këram. reconnaître xasida yi. ma ne ko nag loolu moo waral mun naa mën a ko ma ma sol sama daal. pour bëgg a xeex ci loolu te am naa public. fii ci jumaa ji fii kër sëñ Touba gi ngay dem. fekk fa ñoo xam ne dañ naan leen jàngkat sàngam lañ. Mhm. di leen adressé. Mhm. ab jàngkat. Cheikh Amar nii tëll génn. Mhm. walla maanaam Madické ñëw fii. ñu ne ko ministre sëñ Touba bi nangam ak nangam ak topp ko mu départ ñu jël taxi topp ko ba ca héliport ba ca fooba. te pourtant yéen li ngeen yor defe naa moo ëpp. mais li ñu yor moo gën loolu. moo ëpp. ñun waruñoo dem di mbaxar yàpp ji kenn te sëñ Touba nee na. asbil sutóori. yi umóori. kasir xuyóori. bilaa kidaay asbil sutóori nag ma sàngal sama sutura. aslih umóori na nga sellal samay jëf. kasir xuyóor yi na nga baril samay xéewal bilaa ki daay ci lu àndul ak coono sëñ Moussa Ka ne ko sa waay du ñeewaayi keneen sa waay du xàcc jëm feneen kenn du la gëm di gëm keneen ne doy na xarnu bi sa waay du ñiit ti laax mooy doo ñàkk loo lekk bay dem fekk fuñ sarxelaax ba pare nga koy ñee pour xiif ñu ne ko mu ne dootu li mooy sagar di daax doo gis benn jàngkat boo xam ne nii euh, puso loxo lañ lañ jàppee eh, kii ya que sëñ Tuubaa man maa ngi ay tisi yu ma ñëw man waxuma laa gi may sol mu ne ko nag loxoom du daarati ci paax mooy man métallique laa doon def tëcc naa sama loxo yi ba taay lakk naa ba taay suude lakk ak kii ko ni amatuma benn cicatrice mhm. diw yu baax lañ may diwal ma di may sama di di nooy di ci paax mhm. mooy mooy da mhm. daa ne ku weddi laajal xam ne boobu nag da ko waroon ko ku weddi laajal jànkati waa parce que wala seen wax sa fi ne soxna si ñun da ngay tëdd di nelaw maa ngi lay wax léegi ne la ñun weeru koor gi la am temps pour tëdd nelaw dal léeg-léeg nit ne ma man sëñ Ousmane di dama laa gëj si waaw ma ne ko ah <laughs> mun ta ñàkk parce que néeg gi naa newuma fi maa ngi ci àll bi sama waa kër sax dañuy léeg-léeg may gis aw ma jotoog sax dem ci tali yi wala jarajo yi man aw ma googu jot man alors kon nag li mu wax léegi loolu moo ko moo ko fir da ngay tëdd di nelaw de ñetti weer wala ñeenti weer mais kooku boo ko xasee am nag waratoo waratoo war ngaa sagal sa waxuma sax sagal sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa moom kenn mënu ko sagal moom mooy sagalaate mm-hmm. mais nag nga sagal sa bopp ci suturaal sa bopp ci li la sëñ tubaa defal mm-hmm. ndax wax dëgg yàlla man de nee naa leen kenn du gis Ousmane Diouf muy tux mbaa muy naan mbaa muy dem ci jigéen jum takkul mm-hmm. mbaa muy wax loo xamante ni maanaam dem di dem di ma dem di wayaani wala nangam doo ko gis du ma def lenn loo xam ne lu ñuy xeebe ab jànkat la man du ma ko def. waaw sëñ Ousmane waaw li nga wax dëgg la ndax li leen sëñ Tuubaa defal moo gën lépp. Ah, waaye tamit est mm-hmm. loolu nga doon dox ci ministre boobu. Mm-hmm. ngir ñeneen. Mm-hmm. tu yow dong ak ñeneen nga ko doon kii ndax loolu mu mujj na sotti. waaw xam nga euh, politique nag ça veut dire que ma la ci la ne la. taxawalu woon benn taxaw taxawalu ma woon benn parti. taxawalu ma woon man nekkuma woon ku woo mbooloo ñuy daje. nangam ak nangam loolu amutoon jotutoon am mais nag samay doléance moom wax naa ko la président sa Seck alors bi ma ko ko waxee di xaar réaction ci loolu wax dëgg yàlla ni ni ni ma waxee daloo dal na sam xel mais nag politique comme li daal président Macky Sall loolu yombul muy dal ñu bari mooy dugg ren campagne ren. gañe ren. loolu moom yombut. yàlla yàllaa ko ko defal. yàllaa mais nag doon naa jàppale sa Seck pour bëgg mu falu. soxla ma woon ci moom it un franc. ndax keroog bañ demee jox daan dama ko ne. bul ma jox gaasuwaal bul ma jox dara mun naa mën a ko ndax sama oto bee bi muy ñëw sol naa ci gaasuwaal te maa leneen lu ma yor. ba may demit ànduma man kese. damaa woo samay xarit. woo naa ay jànkat woo naa sëñ Maam Mor Kayre. woo sëñ Ibra Mbay woo sëñ Abdou Lahad Ñang woo sëñ Bàcc Diop. woo ay quelques gars pour bëgg mu xam ne man intérêt personnel taxumaa jóg. biñ demee waxtaan ak moom ci doléance yi parce que liñ bëggoon mooy buntu boobu bu ubbi ko ñëpp maase ci jariñu mais nag yàlla dogalul mu falu. mais nag teewul nag enregistré na yooyu. ba magam mu denc. jombul tôt ou beneen yoon. yàlla noonu yàlla may ñu fekkee ko jàmm salaam. bis bu yàlla dogalee moom muy muy toog ci réew mi. dina bàyyi xel loolu ndax waxoon naa ko ne ko bi nga doonul taalibe bi sëñ Touba man awuma ci yow soxla. Hmm. directement laa ko hmm. ko ne bi nga doonul taalibe bi mun naa ma ne ko lijjantiwuma la. yow maay sa première noonu moo doon man comme dama bañ la rek laa defoon. Hmm. waaye nag bi nga ñëwee jébbalu ci sëñ Touba. mun naa mën ko ci laa xam ne yaw sëñ Tuubaa indi na la. kon nag yow mun naa mën a ko. di wër wër mooy mun naa mën a ko loolu moom ma ma mi ngi ma jox la daal di di xaar. mais na yaa maa ngi ciy am yaakaar ci ne. Euh, jombul bés bu ko yàlla defee président te yàlla na ko ko def. bés bu bés yàlla dogalee loolu am. ah liñ bëgg man naa am mais balaa booba it. yàlla na ko yàlla sottal ci. président Macky Sall. comme que olofal bi dañu ci dëggaloon te dafa am ay awukat. Hmm. xamal liñ ci dugg bëriwul. ñu bëgg nga yëkkatil ñu mel ne njàng moo xam ne da ngeen a yaatal. <laughs> wala soxna Diarra bu fekkee ne amut aw. yéen yéen li ma doon bañ yéen a bëgg a def man man njàngum koor rek rek rek rek la. <laughs> asalamiinu minal mawla nubuwatu خدما وأدام في سلسال خدل بدا حسى الأمين من المولى نبوته خدما وأدام في سلسال خدل بدا muhammadun xayru may yamsi ala xidamin muhammadun xayru man lillahi xad sajada maat ma baati yal muxtaara sayyidana hubil maxaani wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awlaadin fidaa lahu abdan xadiman lahu uskaana li sanada allahumma salli ala miftahi daari salaam Mhm. solo mhm. maa ngi koy bëgg mais comme li ma la wax léegi rek des fois ñu may soxla foofa ma dem ñaari visa bu àggee mooy loolu. bi ma xool màggalu sëñ màggalu sëñ tamxarit tamxarit paase waa Afrique du Sud dañoo bëggoon ma jàngal leen. biñ ma woowee wax ma ko mm, ah ma ne leen ah comme euh, maanaam ñaari léeg-léeg visa yi day xaw a am may kii da ngeen may yónnee invitation ñu yónnee ma invitation bu légal boo xam ne nii amul benn problème damaa war a àgg rek ñu ma visa ma àgg ñu téye sama passeport douze jours hmm. daat may récité yàlla xam na ko. nga xam ne jàng yi mujjoo ko. xam yi mujjuma ko jàngi. waa Gabon am na gàmmu deux mille deux mille deux dix yaakaar naa deux mille dix ma deux onze mas nañ ma woo pour bëgg ma dem jàngale leen ñoom tamit noonu euh, Espagne waroon naa fa dem gas rajab bii paase bii. journée euh, journée culturelle bu bu sëñ Fallou boo xam ne sama waa kër sëriñ ñoo koy def ñoom sëñ kër sëñ Mourala am sëñ Fallou ñoom i tamit la même ñoom dem naa ba ambassade ñu ñoom ñoo ma woone ma Moussa Diouf ma ne waa ñu ma am nga complément de dossier complément de ko am <laughs> yàlla eh, jël passe gaa sa passeport moo ci war a tege ñu visel ma ma dem mais liñ comprendre lu ba léegi mooy ñun amuñu jotug dem dem Euh, extérieur di fa toog di xaal xaali ñun amuñu googu jot. parce que dañoo yore fii suñu métier moo xam ne maanaam moo ñu ëppal solo fop dem foofa di wër ay daayira ak ay yi topp mais nag yàlla baax na xëcc moom bu daggul dikk. Euh, xëy na yàlla mën nañoo dimbali ba boo lëgee bu ñaanee ñu may waxtu yi ñu ci cappaandaw bi waaye comme li la laaj sànq rek comme que yéen ci réew mi ngeen bokk hmm. tamit ay doomi réew mi ngeen li ngeen di def tamit nit ñi bëgg nañ ko ndax sëñ Tuubaa fépp la kon la nekk daal hmm. ba tax li ngeen di def dañ ko bëgg lool bu ngeen dee soññee comme ñi nga xam se ne ñoo nekk ci politique lan ngeen leen di wax pour ñu jàppale yi moom li ma la wax léegi rek politiciens yi moom moom li ma li ma leen di soññee daal mooy ki nekk parti au pouvoir fi ne nii mooy président Macky Sall maa ngi koy lancer appel di ko jaarale ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yore wàllu googu mooy jàngkat yi nañ leen di may visa ñuy dem bitim réew. parce que dañoo am ay fans yu leen soxla foofa danaa leen wax nag ne leen képp koo xam ne may nañ ko visa mu dem toog ba visa ba jeex ñëwut ñu bisiwut wala mu toog sarale boo léegi buñ ko may te nañ ko wër ci dëkk bi ba gis ko ramaas ko andi ko waaw man loolu laa leen di wax de. képp koo xam ne xam nga loolu yomb naa régler comme ñoom dañoo jàpp ne ñun bu ñu demee dañ fay toog képp koo xam ne may nañ la visa ngay doonub jàngkat parce que léegi mayeetuñ visa nga doon nga ñëw rek ñu jànkat la rek ñu ne jànkat la ñoom defuñu lool de du naan la wan ñu ay firnde yu wane ne yow jàngkat nga joxe sa carte BSDA ñu xam ne kii jàngkat sinon nga defar Facebook Facebook def ci say programme lu mat vingt yu bokkul légaliser ko boo demee jox leen ko ñu xam ne kii jànka la centralisé la alors léegi ku def loolu ba pare nag bañ may la visa nga dem toog ci réew ma bañ a ti mais bu boo ñibbisee buñ la may sinon nañ la ramas nañ la wër ci dëkk ba gis laa indi la boo léegi ñu bañ laa may loolu yomb na ñiin nga xam ne nag ñoom ñi ngi leen di may ñu dem def seen prestation wàññeeku ñibbisi <laughs> ñu kon leen di leen may loolu kay c'est simple. waaw jërëjëf sëñ Ousmane ñu daal di xam nag ñu ci coppaandaw gi. Mhm. soxna Astou lañ nañ ko jox bu fekkee ne amul lu wax mhm. naa waxtu bi moom jeex na di ñuy tàggatoo rek di wax ne waxtaan bi moom am na solo macha allah xam naa mhm. bu ñu continué woon fii ba suba moom duñ doyal ci sëñ Ousmane xam naa ne nit ko xorom la <laughs> di ko sant bu baax di ko gërëm ci euh, oyof gi mu oyof ba fekk suñu fi nga xamante ne fii la nekk. di ko ñaanal ci li nga xamante ne tamit ci la yëngu muy ci wàllu xasida yi euh, yàlla ko ci suñu borom defal lu gën ci moom tamit ah. defal ko ci damit lu kawe njortam ah. ndax euh, ñu koy sant ba di ko gërëm di sant képp ki nga xamante ni tamit euh, jaar nga fi di sant suñu caméraman yi seexu naa euh, jinne xaw ma nan la ko kee di wooyee ak Moussa sëñ bi jaxate moom moom day sëgg rek xam naa ni nga ragalee koor ëpp na <laughs> di sant El Hadj Ousseynou Ndiaye Xadi Ñaam mi nga xamante ni mooy jàpp ci montage bi sant Maam Fatou Kébé ragal koor dañ jox dig daje ci beneen émission ci seen Euh, lii moom ñoo ko seq ndax dañ ne ndegam ñe ña doon taxa ne ñoo daanu ca teen ba saa kaaña taxawoon ca pindu teen ba di jukki yéen lii ngeen def lu am solo la mooy si internet yi ngeen taxawal te def ko ci biir dëkk bi te du ngeen ci wane dara lu naqar yàlla ñi ngeen di jël mooy vedette yi sëñ Touba yi ana vedette yi mooy jàngkati xasida yi parce que ñoom dong ñoo am otage su sëñ Touba ne ñoom ñii daal samay doom lañ maa leen jur. waaw kon ñun ay doomi sëñ Tuubaa lan kon su ngeen defee lii jël ñu comme ay artistes di tasaare suñu liggéey ak di ñu laaj suñu xalaat ak di ñu wan suñuy fans yi nga xam ne amuñu opportunité di ñu mën a gis tout le temps war nañ leen sant bu baax gërëm leen te ñaanal leen nag site bi fi ngeen bëgg mu àgg fa yëpp suñu borom àggale ko fu gën a kawe seen jor mu dem ba doon tale boo xam ne day daj jamono kap kap kap ci daraje sëñ Tuubaa di sant bu baax seen cameraman yi ay jàmbaar lañ macha allah. kon nag euh, li ngeen jël yéen tam te mënoon a demee stage feneen di dugg ci yeneen i kii yu xaw a gën a ëpp kii kon su yàlla dogalee ngeen nekk ci liggéey bi sëñ bi yéen tamit naa ngi leen di sant bu baax. gis naa professionnalisme bi ak euh, euh, taxawaay bu am solo bi daal. jàpp geeg yëpp ak bëgg gi. yal na yàlla kàttanal leen. Mm-hmm. di nuyu ki nekk rési nga xam ne mooy def réalisation bi mm-hmm. ñu ngi ñaan yàlla mu kàttanal ko moom itam. Mm-hmm. Mm, bàyyi leen di leen sant bu baax eh, présentation yi. kon nag eh, di ñaan rek yàlla defalaat nu beneen jotaay. boo xam ne nii incha allahu rabbi ah eh, dina gën a yaatu bu baax ci ni ngeen ko bëggee yëpp incha allah. ñun moom. bàyyi nañ leen jox nañ leen suñu kii. Mhm. ngir fu ngeen ñu soxlaa rek tam fekk ñu ci jot. Mhm. bu soob yàlla loolu dina mën a sotti bu baax ñu ngi baalu àq ñëpp nag. Mhm.

na mooy montage son El Hadj Ousseynou Ndiaye tamit fàttewuñ ko ñu joxe dig daje ci beneen jotaayu koor jërë ngeen jëf